gouvernement de concordance maa ngi ko wax université Gaston Berger décembre mu indi coow gars yi di débat ma jël kenn koo xam ne mu ngi liggéey ak man ma koy remercier ma ne ko duggal ci réseaux sociaux yi ñi di saaga waxuma leen defuma leen nag ñoom mais ñi nga xam ne joxe nañ xalaat ci gouvernement de concordance bi ma wax ku ci nekk duggal ci page Facebook nga xool la mu wax nga defal ma ko rapport nga indil ma ko mu defal ma ko rapport ma gis ne critique yooyu ñuy critiquer ci gouvernement de concordance benn bi ci gën a am solo mooy loolu mënul nekk parce que du ñu am opposition ma ne nag ci livre bi dinaa tontu ci loolu loolu mooy demo loolu mooy inclusion man maa ngi ci réseaux sociaux yi du tout temps laay bind waaye maa ngi xool maa ngi liir xam naa li fa xew te xam naa ne ñu fa nekk ils représentent le Sénégal donc xeebuma seen xalaat opposition boobu tey génne naa ko lu mu bon bon ci juróom-benn ba juróom-ñaari pàcc ci livre bi gouvernement de concordance boobu ñuy wax dafay ànd ak système mu parrainage système pare naa sénégalais yu bëri d'accord nañ ci. mais njuuj njaaj giñ ci dugal ci élection 2019 moo tax ñi ñi d'accord ci nañ ko toxalee moo jaarul yoon mais gouvernement de concordance dafay tekki ne bu ñuy dem élection présidentielle dina am parrainage bu trente candidats déposés cinq ñu jël leen wala boog pour reprendre l'exemple de 2019 bu vingt sept déposés ñu jël cinq mais vingt deux ñu nga xam ne jëluñu leen mais c'est les citoyens ñi nga xam ne ñooy def le parrainage citoyen ñoo décider avant même l'élection présidentielle que ñooñu ils sont dans l'opposition parce que on ne les a pas choisis pour qu'ils soient dans le camp de ceux qui vont exercer loolu mooy première pàccu opposition dans un gouvernement de concordance ensuite bu ñu duggee ci gouvernement bi loolu profiter pour répondre cette troisième question bi tey lii ñu mu mag président Macky Sall di wax gouverner ensemble et cetera bokkul loolu la sénégalais di wax transhumance transhumance bi mooy dem nga élection falu ñu la tànn ñu la taw la nga ji sant ñu la nga jiite nga fexe ba ànd ak kañu fal pour ñëw jiite loolu la sénégalais yi di woowee transhumance gouvernement de concordance te di dugg ci gouvernement bi ni sénégalais yi tànnee président de la république noonu lañ ko tànnee moom parce que ci constitution bi da nga naan dinaa def vingt ministères vingt ministères yooyu nga def ko ordre protocolaire nga ni ku gagné élection ba ngay am dama ko joxe ci livre ma ne ki am 60 pour cent par exemple xam na ne dina am 12 ministères donc bu résultat yi génnee rek xam na ne dina am 12 ministères xam na yan ministère lay am li ci des président de la république moomu donc ci gouvernement de la de concordance président de la république mënul nommer ku ko neex mënul dax ku ko neex parce que tey parti bu amoon tey 15 pour cent ñu ne la trois ministres nga ci am trois ministres yooyu yaa koy tànnal sa bopp dugal leen ci gouvernement bés bu ñu demee ba ministre yooyu télé président bëgg leen daax dafay woo candidat ba nga xam ne moo proposé ministre yooyu ñu daax leen mais pour bañ président abusé da nga naan mën poste ministériel bu nekk mënoo am plus de trois titulaires ci biir sept ans yi loolu dafay wàññi bu baax président la pouvoir président la république boo ne tey ki nga xam ne mooy ministre de l' agriculture ci ki jël deuxième la bokk mu ñëw dugg ci gouvernement de concordance ñu dawal six mois président na ki dàqal leen ma ñu dàq ko mu di keneen mu dawalaat six mois président na kii baaxul dàqal leen ma ko six ans ya ko dese troisième ba ñu nommé président amul droit dàq ko parce que damay fàttali ni li ñuy wut mooy stabilité ñun dañu toll ci dëkk boo xam ne dafa wut stabilité c'est que ñun dañu war a toog yi dal liggéey dafa am yoo xam ne moo am ci pays développé bi ñun tollooguñu foofu ñun mënuñu dëkk ci xëyroo ŋaayoo xuloo xeex di guerre xale yi naan na saf comme guerre mondiale ni muy safe ñun dañu toll ci tabax réew dañu soxla xam-xam yëpp dañu soxla intelligence yëpp ci livre bi def naa ci benn proposition j'espère que syndicat yi dinañ xam fi may waxee dama demander ce que j'appelle une clause de paix sociale clause de paix sociale ma ni droit de grève am na man dama ko nangu liggéeykat buy liggéey kontaanoo am nga droit de grève kenn du dindi dara ci droit de grève waaye ma ni dëkk boo xam ne dañ koy tabax président buy door a ñëw ma nañ ko may deux ans na ñëpp ànd def consensus moo ami daam président bu bees ñëpp ànd def consensus may ko temps parce que am na yoo xam ne boo ñëwee rek toog xeex bi commencé xiiroo bi commencé ngaayoo bi commencé mais kenn du dem loolu Macron mën na ko supporter parce que dëkkam dafa tegu ci raay ñun mënuñu ko ñun dañu war a toog liggéey boo ko mayee nag clause de paix sociale boobu deux ans doxalul boobaa nag nga génn caw yi mais loolu c'est républicain tekkiwul ne da ngay remettre en cause droit de grève mais dafa am benn moment boo xam ne ñun ñëpp dañu war a toog loolu moo tax ñu ne ñi nga xam ne dañu ñàkk dañu war a être représenté ci gouvernement te loolu dafay régler problème transhumance pour ñi di wax naan loolu dafay indi transhumance maa ngi terminé parce que lan moo tax Sénégalais yi homme politique yi di transhumé lan moo tax. da bokk ci élection ngeen nekk ñu ne fukki baat la ñuy wut yow nga am ñeenti baat perte ci am juróom-benni baat rawee ñaari baat kese nekk ci dëkk bi mel ni muy buur mooy bummi lu ko neex mu def alors que yow am na ñu la faral ci dëkk bi yow tekki nga dara ci dëkk bi kooku buñ la jëlee teg la de côté yow ak sa ay nit ngeen nekk ci yenn situation yi am ne xam ne am ngeen xam-xam am ngeen la loo leen yéene réew mi mais kenn joxu leen ko. du ma ne baax na de man d' accord ma pour transhumance na leer nañ mais loolu mooy tax ñu bari jàpp ne puisque ñoom am nañu ànd ak ñoom ci dëkk bi ce que j' appelle les nuances les nuances de ñoo opinion publique sénégalaise dafa war a feeñ ci gouvernement loolu moo tax ñi di transhumé